asalaamaaleykum mbokku Grand Yoff tey nag du ma guddal parce que monsieur le dafa baax rek moo tax ma ne ko damay wax ñaari baat rek lépp lu may wax moom mu tëj jotaay bi wax ko parce que moom moo fi teewal état fii ci Grand Yoff dafa fekk ni rek biñ fi njëkkee ñëw fële ci HLM Grand Yoff dafa am engagement bu ma jëloon ne leen lépp lu ma man ci nit ku baax ku ma yaakaar ne ñu la woowee nga jàppale ñu dinañ ñëw woo ko pour ñu jàppale ñu lii nekk ci aspect technique yi docteur dina ci dikkaat waaye li may constaté rek mooy li ñuy wax yëpp de à commencer par man ñenn ñaa ngi seen masque fii la nekk ñeneen a ngi fii ñeneen a ngi fii kon ça di dire des na à commencer par man laay wax de kon nag vraiment ñoo ngi ñaax ku nekk mu takk correctement masque metti na mais takkum masque gémmiñ gi la ak bakken bi yëpp ngay boole la tax nga koy takk. du sax aar sa bopp fondamentalement mais fexe ba boo amee feebar yoo doo wàll kenn comme nit ki nag kii takk am na ngor gu tey ni moom dana takk pour bu amee feebar mu bañ laa wàll man nawleem naa fexe ba may takkit manit bu ma ko amee bañ ko wàll donc vraiment damay ñaan ku nekk nga takk masque jëloon nañ ay mesures yu ferme yoo xam ne état bi jëloon na ko mën na ñaari weer genn wàll ba ñetti weer ci tey léegi nit ñi xam nañu lan moo nekk ci mbir mi buñ né nak yoon waangi ni li moy safara ku né war nga fa mëna jaar parce que fiñ toll li président de la République daan nañu dund ak fièvre bi moy lan bu la gan ganesee lank ni ñu njibi sante mbay mba mu sante Touré ke sambe ni neex ci bi neex ñu lànk du ñu ñibi da ngay wut pexé bo toogee nga làq ko wala yeen sa nga mësal ko touti loolu moy lan comme Covid baa ngi fi sa demagul xamuñu kañ lay dem li ñu laaj ay waay li lay sul yomb na dandante leen un mètre bu nekk takk leen masque foo leen toll raxas leen seen loxo ak saabu ñett yooyu rek lañ laaj buñ ko defee rek ku nekk def ko yàlla mën leen suturaal doon naa wax keroog daan ni bi ñu tëjee ci korite gi suñu mbokk yi dëkk ci yeneen dëkk yi namu ñu de. bu ñu namoon bu ñu tëjee di nga dégg ñu naan la ñëwal ñëwal ñëwal fi ñu toll ñu tigi ñëpp ak ñuy xool fu nit feebaree Sénégal ñu ne Ndakaar la ko jëlee ay waay waay Ndakaar nañ leen góorgóorlu bokk góorgóorlu bi yomb na waa kër docteur dinañ ci ñëw man daal du ma ci sor ci wax ji lu dul sant waa Grand Yoff vraiment ci engagement bi damay wax ak professeur Djibi tey ma ne ko DG Port ma ne nangami masque du ma ci yegg damay bàyyi moom mi ko maye mu wax ko waaye man li ma wutaat feneen yokkaat naa ci mille yokkaat naa ci junni parce que dama japp ni lu joxe comme ñun ñoo engagement nañ ko def directeur vraiment merci comprendre que président de la république wax parce que du yow kessé ya ko wax ya ko def dañoo ñaan ñu ay le yoon na ay nit ñu commencé joxe Gérard Senac bu EFA jox nañu 5000 masques mom mi kérok 50 000 masques la duggal ci département fukki masques bi ko défé mané ko DG il faut fuma jëm ma nous avons nekkal AKB Abdou Karim Bourgi Nous avons 20 000 masques 20 doyul masques yi bu ñu masques, nous ku nekk am masque bu ko ñetti semaine wala nous avons Nous kay compliqué wul nañ takk rek nous bu ñu di nous di tànnante ñu nous nit ñi wax da xam dina am wala amul parce que gis nous Sénégal nous ñu nous lu c'est l'autre c'est pas moi man mi de xamna sama sama sama mbokk bu ma jigee sa si man bu fer bi dal am nañ ay docteur yu mu dal ñeneen ak ñeneen ak ñeneen sa ku ci nek lu bari xam lu lay wax xawma fu mako ko bu may ñew sama kër sama doomi da ñaan mais papa yaa génnoon de léegi duñ ma sax comme niñ ko sunu papa yi ak suñu yaay yi nga xam ni sunu mag yi nga xam dikku ñu wala sax suñu doomi ak suñu morom yi parce que febaru du mag de Kep ku mak mak fragile nga mo ngi mel ngelaw luy ñew ngelaw buy ñew bu fekke ci all bi garab yo xamni ni reen yi da koy yóbbaale kon nak du mak kese bu ñu yaakaar mag ñi kese la mag ñi dafa fekk rek mak gu bari bu de go ya nga feebar tension wala prostate wala diabète wala leneen jigeen ñi nonu waye même xalé yu góor yi nga xam am nañ li ñi tuddé comorbidité manam bu nek seen bir mbir bi mën na

moo sama xel ni yar ak sen médecin chef bi machallah mané way nañ dem Grand Yoff lepp nag comme ni ma waxé ci pilotage sen sous préfet arrondissement lolu kessel mais dama ne woon sax du ma ñëw wallahi azim mais tay ji dafa fekk ci ci ci nu mu ci distribution ceeb bi mais dama ne kon woon sa cérémonie donc monsieur le préfet vraiment nga tëj nga lijjanti yëpp yalla nañ yalla sutural dal ba buñu tudé ci Dakar fiñ ñu toll man day beew sama nopi sama yeneen préfet yi may toll ñaan ma préfet Corona na nga def. donc dama sonn nañ góorgóorlu ba nga xam ne ni ñuy joxeñee dakaar bis bu nekk ñu naan ka communautaire gis nga tey docteur bi ñuy wax buñ nee Pikine ma ni benn daal lem sama loxo lem ko lem ko ba xool ma ni ah 9 sur 30 kon 30 cas communautaires yi 9 yëpp Dakar la 10 heures buy jot noonu laay def buñ nee euh, euh, njagañaaw ma ni bon sama yoon new ci xam nga ñu ñëpp Sénégal lañ mais pour vous dire ni may réagir parce que cas communautaire yi dafa bari Ndakaaru docteur dina ci ñëw kon nag nañu takk suñuy masque raxas suñuy loxo dandante daal koy def ñetti semaine weer xool la muy joxe bu ñu yàlla dimbalee mën nañ ci génn ngeen baal ma foofu laay yem sant ñëpp gërëm lépp ci wax ji.